moi je me préoccupe de faire passer ma caravane. Mm -hmm. c'est normal qu'on entende du bruit derrière que je me garde de qualifier par esprit. Mm -hmm. moi je suis avec des magistrats avec lesquels j'ai sympathisé. Mm je suis avec des personnes que je n'ai jamais connues avec lesquelles j'ai sympathisé. ça me rappelle un peu les colonies de vacances les camps de scoutisme. parce que vous mangez ensemble vous passez la journée mm-hmm. ensemble vous mm-hmm. discutez ensemble vous vous donnez des idées ça ça soude c'est pas les stéréotypes là que des médisants distillent ci télé yi moo nekk réalité en fait mm-hmm. donc man par rapport à ça euh, je demeure yow yow yow sa apport sa le débat public euh, les questions yi nga xam am solo sensible ñu ba dañ koy dañ koy saluer alors am na ñu lay attaqué ñoo xam ne vraiment gisum gisuma seen njariñ ci ci doxalinu réew mi ah tu as répondu à ma parce que man sama contribution ci débat public bi même ñooñu di ma attaqué man jàngal naa leen bu ñu dégloo sama vidéo dañu xam lu ñu musul xam mm-hmm. wala ñu gis lu ñu musul gis yu feeñ na grâce grâce à loolu au moins moi j'ai mis ça dans la corbeille mais ñoom qu'est-ce dans la corbeille xam nga koo xam ne amul orma sax ci suñu sang bu tedd bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. naan ay maako gën ndey maako gën bàyyi kooku vraiment su ma ŋàññee man kooku waaw ah,